سلمني من العداء لم ينه نحوي من عدا وراد لي من اعتدى وكان لي وعزما مد لي الباقي الكريم جملة ما كنت أروم سدد لساني نوير جناني صفي أماني وزد برائي إليك تبت توبة نصوها وجنب لساني في ردا فصيها mbokk jullit yi mbokk talibé yi seen mbokk talibé Serigne Touba Touré mo leni yeugal émission bi mi am ci madiana TV émission bi ni waxtane serigne Touba mu daara ay kennel serigne Touba ñu ci àndal ay borom xam-xam ño xamni dañuy kennel serigne Touba tek ko ci xasida yi ndax serigne Touba daf ño waxon ni karamati khattu yaddi wadi jazab ahzamahu rabbi bi xatti jazab bokkul ak karaamati yaddi walxattu lii yahuudu afdalal buruur kon seen émission ngoog di am quinzaine bu nekk maanaam fukki fan ak juróom yu nekk fii ci seen télévision Madiyana TV ngeen si ànd ak seen mbokkum taalibe Serigne Touba Touré ngir ñu kennal Serigne Touba nga xamante ni noonu la ko yàlla def wala yazaalu mun'ima huwa al-ilahu was-samad muli sama bila amad waxad kafa niyal kamal وكان لي وكرما أذهب ما لم يرض لي بخدمة المفضل وكان لي بالأفضل وخاد لي التكرما لقد